Arda Güler confirmé Arda Güler convoqué Arda Güler Carlo Ancelotti weddiwul Aladji Malick TV information yi mi leen doon jox démb ba tey di xam ne ni gone gi nag am na information yu bari yu muy segg yoo xam ni danañ ko boole ci match bi nga xam ni équipe bi de de Real Madrid mi ngi koy dajale ak Mallorca loolee di suba jàmm incha allahu match ba tas na nag convoqué nan ko ak ki nga xam ni mooy Vinicius Junior ak yeneen yokku yu ñu leen bëgg a andil ginnaaw bu ci yéen ñii door a ngeen abonné yow mi abonné ba pare. dëkk ci kër gi maa ngi lay ziar baax a baax di la bégg di la tatagal jox la ñaari loxo ni la jàbbu catalan yi merci beaucoup merengue yi tamit ñi ngi leen di bégg topp leen yéen ñëpp nag àndandoo aimé suñuy vidéo ñu continuer li nga xam ne mooy information yi ma nga noonee kii di Arda Guler ngeen gis ko di ab xale boo xam ni tef la nin ko mën a waxee di béy wu ndaw woo xam ni yàgg naa mbépp fi mu toll nii nag moo yor ci gël gu yam amatul wax ju bari ji bu fekkente ni kii la di Carlo Ancelotti ak doomam wonan ko minute yuñ ko ñamal na ca profité génn euh, toj dëkk bi xool li nga xam ne moom la mën a def ci li nga xam ne mooy information yi ñuy am pour mu góor góorlu bu baax baax te it information yi ñu am dana am minute yoo xam ne daanaka kii di Carlo Ancelotti ak doomam dana ko ko may waaye du moom rek moo nekk ci liste boobee kii di Vinicius Junior mi nga xam ne blessé woon na moom it dellusiwaat na ak farmu dellusiwaat na ci tàggatu goo xam ne bi ñu ko xoolee coyte ko xoolaat bu baax a baax xam nañ ni wóolu na boppam ci li nga xam ne mooy yile yile match nar man nekk match boo xam ne bu am solo lay doon ci moom ndax moom yi nga xam ni mooy Vinicius Junior day tax ñu jàpp ni préparation bi mu teg ci taabal ji pour mën a des dellusiwaat préparation boobee a ah, teg na ko ci yoon teg na ko ci temps ak heure loole tamit nekk tawféex ci li nga xam ni mooy équipe bu Real Madrid Fran Garcia tamit moom i bokk na ci ñi nga xam ni ah, kii di Carlo Ancelotti daanaka ah, woo na ko keneen kon woo koo xam ne sax daanaka mi ngi ci biir di Tchouaméni Fede Valverde ak kii di Luka Modric Bellingham Toni Kroos Vinicius Junior Rodrigo Socialo Sos bi ak kii di Brahim Diaz ñoom ñëpp nag bokk ci équipe bi nga xam ni ñoo war a daje ak euh, équipe bi la nga xam ne moo nekk Mallorca loole suba jàmm lay doon ci euh, li nga xam ni mooy match bu am solo dana ci dikkaat